noonu la wax fi ñu jëm ak justice ñi fi wax ni yëpp gisuma benn dossier boo xam ne Ousmane Sonko daf ci dugal loxo par exemple ku war a jàpp mu ne bàyyi wala ko war jàpp koo xam ne deful dara ñu ne jàppal léegi nag problème bi mooy ah ku rëy ku ndobin rey sa maam boo gisee lu ñuul daal li ñu dund ci suuf Macky Sall ayam gi ak yooyu loolu la ñu jot ay nit yu ñu bind ci biir kii parce que neexuñ la wala taxaw nañ def benn ki nga xaar leen ci aéroport bi di jàpp di rokkas. sorti menace yi ñu def lañ la wax. li wax voilà sorti menace yi. waaw non yi naan ci fan yi néew ci juróomi fan ci 10 jours ci nangam. bon bien sûr waaw parce que askan wi ñu ngi topp di wax naan. ñii dañoo war a def réduction des comptes ñi naan yéex na yi naan nangam nangam nangam loolu ñooñu lay dalal seen xel parce que la doit changer de mooy du askan wi ñoo war a taxaw di ragal mais sàcc yi ak sorcier yi ñoo war a tiit cuuraay dëmm dañ ko war a taal dëmm yi jëfuur loolu moo am ginnaaw jëmm yi jëfuur nag bay wax mooy li mu waroon def mi ngi koy def wax ji def na effet parce que dëmm yi képp il faut que maa ngi nii ku ko ragal nangam nag affaire yooyu boobu nga ragal. mais est-ce que du bàyyi ministre de la justice mu annoncé. non ministre de la justice mu annoncé. wala dama ne dama ne président Diomaye waxoo. Ousmane Sonko waxoo ministre de la justice waxoo benn la Ousmane Sonko la dafa am benn particularité mooy li Macky Sall amoon la am. muy lan li Wade amoon la am li Abdou Diouf amoon la am li Senghor quatre images un mot doo ma trouver le kon kon kon kon rek kon li may wax nii xamoo ko yow ak sa xam-xam bu bari bi. xaw ma ko de. Wade la woon chef de parti. Hmm? fa lañ daje. Diomaye du chef de parti. amul sax ndomba tànk ci biir parti loolu moo tax nag na waxi kee daan def télé beneen bi mooy ci côté boobu Macky Sall étant premier ministre Idrissa Seck avec Santé de Thiès Macky Sall va plus loin que Sonko bi dem ci pili yow euh, représentant corps diplomatique yëpp toog mu naan leen te loolu gën a bon sax fara ñun Sénégal la Sonko di waxal mais Macky Sall ñoom étranger yi la doon waxal te li xew mi ngi fii fàtte xaju fii te loolu jotewul dara ak justice parce que la justice doxal moo koy doxal. ok loolu moom laa ci mën a wax. ok euh, jërëjëf Mohamed fan la mouvement bi toll ak législative yi fan ngeen jëm ak Abdoulaye Daouda Diallo pour jeexal. xaaral ma tontu. <laughs> waaw waay nga ma tontu rek waaye. non non dañuy waxtaan <laughs> dafa am lu koy expliquer tuuti rek. ok bi dañuy kii boo ma defee nii dinaa la ruubee de. dëgg la dëgg sa mouvement ma lay waxee sa mouvement da pour ñu waxtaan ci. waaw dama am temps dañ ma fi jëlee. boo jóg dof affaire Sonko. <laughs> waaw maanaam dama dama ko wax. dama ne dañoo wax débat ba pare gis nga boobu lu leer laa lay xam nga mouvement lu bëgg a man aw lu may perte xam nga amul lu may perte. Eh, waaw d'accord léegi su ma bëggee sa mouvement. Hmm. danaa la ruubee daal message bi may laaj si ñoom. waaw mooy. ah yàlla boo yore la ma. wala nga ci. bu ñu la joxee bu la joxee nguur. Ah, kon wax nga ci. waaw bay bay bay bay kon wax a intervenir rek ñoom Sonko laa waxal. xam nga émission bay jeex ma xam ne yow dañ laa nar a waxal. juróomi at ma léegi dama lay ruubee léegi wax ci bi juróomi at léegi nag danaa la ruubee nga xam ne ruubee mette. lañ ma yor comme ni ah, defar ci mouvement ñu jox parce que tey sénégalais yi dañoo yaakaar jomaay parce que jomaay la ñu fal Sonko ko tànn ñu fal jomaay. Hmm. sénégalais yi dañoo yaakaar président jomaay Sonko du président premier ministre la rek mooy chef de parti nag moo tax gars ko tudd parce que moom la yàlla jaaral ci ay loxoom mbir mi kenn mënu ci dara man moom damay nangu ndogalu yàlla yàlla moo ko may lim ko may nit fu mu jugee impôt après député. ñu raje ko da ma ñëw rek yaa ngi may dégg. yàlla doo jox ko lii ça fait sept ans mi ngi xeex te yàlla jox ko lépp privilégié pour yàlla nag bu ko bëgg woon sénégalais yi ne leen d'accord parce que yi doon am ak li fi xew foog mu jeex mais ci juróomi at yooyu lañ leen toog pour ñu liggéey man bu ma sañoon mm. danañ gën a concentré parce que at dafa gaaw bi ñu leen falee léegi gis nga lu mu gaaw gaaw juróomi weer ñëw la leen ñu dugg un juróom 4 mois moo ci def ñu dugg un mois un an te buñ ci duggee après leneen la ñuy waxaat législatif yi ñëw te ci biir 5 ans yi ñaari élection mi ngi am local législatif ak local ok beneen bi mooy kon nañu jéem a góorgóorlu ci loolu non bëggoon naa ñëw sax ci xam naa peut-être ci ñëw ñëw ceexal ko wàllu agression yeeg yooyu li xew démb ak ci affaire meurtre yi quoi parce que loolu lancé woon naa ci message non dëgg la waaye dafa ndànk da ngaa xiif rek euh, waaw c'est rek na ci nañ ci gën a jug ci wàllu sécurité ñu ci wàllu agression yi rey yi moom wax ngeen ci waxati ci macha allah Feeling Dakar def nañ ci liggéey bu am solo man dama ko doon suivre wax dëgg yàlla def ngeen ci liggéey bu am solo Bamba sama xarit la borom chaîne bi ñoo bokk benn koñ Kaolack suma gaayan la yàgg nañu ànd comprendre nga jabaram xam naa ko bu baax visu mais li ma mën a wax mooy nañu gën góor góorlu ci wàllu sécurité nañu gën a góorlu ci aar askan wi parce que démb xew yaa ngi may dégg nit di yor saagam di jéggi ñu dóor ko jaasi malheureusement ba foofu am na ay caméra surveillant démb barki démb la xew ah, ci diggu bëccëg xam nga loolu yëpp gars yi il faut ñu gën a jug ci wàllu sécurité quoi xam nga ñu gën ci xeex te xam ni ndaw ñi nañu dem liggéey yi mouvement euh, gouvernement bi nag nañ gën a taxaw ci problème programme bu xëy ndaw ñi parce que vraiment mm-hmm. nit ñi amuñu liggéey nañ taxaw ci booy ñu am liggéey jàppale borom jakarta maa ni jàppale ñëpp parce que vraiment nguur loolu moo tax ñu fal pour ñu jàppale ndaw ñi booy amatuñu liggéey dëkk bi metti na ñi ñaa ngi kaas te kaas gi mi ngi gën di continuer ay wax yorul nguur. kon nañ ci gën a taxaw bu baax a baax mouvement bi nag comme ni ma ñun suñu ñu ko tax a jóg mooy lu jëmale réew mi kanam ñun dañu àndoon ak président Ablaye Daouda Diallo ci président Macky Sall. nekkatu fi ñu ngi ànd ak Ablaye. Euh, ñu ngi dégg sax ay wax ñu naan ay. Ah, Amadou Ba ay naag waaw parce que mi ngi def lancement mouvement le 9 suba incha allah kii faat mais bi ñu waree ànd ak moom ànd nañu ak moom Macky Sall moo ko tànnoon bi mu koy tànn am na ñu mu fa fekkoon ñu mu fa fekk ñoom ñëpp dañoo def réunion Moustapha Niasse woo leen ñu ànd jàppale ki nga xam ne moom mooy Amadou Ba campagne ci àll bi Abdoulaye Daouda fu mu demoon ak Amadou Ba di ci àll bi est que dafa àndoon ak ñoom Diomaye damuñu Podor ñoom Diomaye damuñu Podor mais Abdoulaye dafa gagné foofu comprendre bi ñu waree ànd ak ñoom ànd nañoo ak ñoom ñu jàppale ko yàlla dogal mu perte nit da ngay nangu ndogalu yàlla. parce que dañ leen a jàppale. Hmm? moom dañ leen a saytaane xeeb dolli. yàlla tere <laughs> dañ leen jàppale ci 12 ans non dama ne wax rek su ma la jàpp mooy. dañ ko war a jàpp moom ngay benn parti am. ñun ñu ngi toog di déglu président parti bi. ku ñu jàppale ñu xam ni ëllëg ñu jàppale te xam ne ñii moom benn mandat rek lañ fi am mu jeex keneen ki ñëw te xam ne ñoom la ñu ci àkkar 50 ans fan ñu dañoo mën a sax takk seen i dara mënuñu ko. toj nag man nag ñii laa ci yoon. sama xarit bàyyi toj nag genre laa ci yoon. bàyyi toj te buñ la lu waral bi wala programme cee wax. xaaral xaaral looloo taxawal. non bàyyi non xaaral bu fi indiwaat débat non xaaral xaaral. man yàlla dafa dogal ma créé suma mouvement tuddee ko ànd defar suñu réew avant mouvement bi. Eh, defar suñu réew. waaw xaaral may ma usurpé may ma waaw xaaral.

bi liggéey jotee woo ma mais naa bañ parce que ku nekk ak fa nga jublu yàlla moom boole président Abdoulaye parce que rakkam mu bokkal ndey ak bàyyi moom moo ma jàppale leen du dëgg mhm. mouvement bi ñu ngi ci ba léegi may wax ak yow nii kan moo nekk maire Parcelles du Jamil Sane fu mu du Pastef la ma fay def defu ko fa jërëjëf merci beaucoup Mohamed en a sa diggante ak saamam lu yàgg la tour bi dafa wuyu borom saa wolof mhm. ñu bari duñ xam baatu wolof. te bu toogee du ko wolofal day tax sénégalais yi comprendre man mii yàlla mooy maye lim xam ci wolof. Mhm. man xaw ma ko jërëjëf. foofu rek laa ko soxla. jërëjëf merci ah, beaucoup Fatou yaa am dégg-dégg. cuut euh, jërëjëf on se rendez-vous prochainement. merci jërëjëf ah Saa Wolof merci beaucoup en tout cas. jërëjëf Soxna Fatou jërëjëf. waaw ba lundi incha allah waaw incha allah ba lundi ba non lundi je viendrai après le journal. <laughs> <laughs> je viendrai vers 11h euh, 13h comme ça. en tout cas merci beaucoup Pape moo nekkoon ci xarala gi jaajëfal Mohamed merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et puis ñu ngi seet élément battu bu baax a baax yaram xaw a sutante. merci beaucoup merci beaucoup à Saa Wolof merci beaucoup à Fatou. merci beaucoup à euh, monsieur monsieur Demba Tine donc rendez ci kanam tuuti en tout cas Daouda Wade ak Tounkara ci kanam tuuti incha allah d'ici là portez-vous bien et bon dimanche jërë jëf.